benn Pierre. saar benn. wàll ci linjiin di bataaxal bu jëkk bi yàlla may Pierre mu bind ko. man Pierre ndawul Yeesu Kirist maa leen di bind. yéen doxandee mi tasaaroo. ci diwaanu Pont. Galasi Kapados Asi ak Bitini. yàlla baay bi tànn na leen ci li mu leen xam bu jiitu te sedde leen boppam ci jëfu xel mu sell mi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 te kàddu googu mooy xabaar bu baax bi ñu leen doon yégal